mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi ci waaye tey nag ñu ngi fii ci bergerie Fata Diop kilifa gi ziar naa la. naa la bu baax. bu bees sant bu wér ga alhamdulilah. bergerie Fata Diop nekk fan. waaw nekk Kër Mbaye Fall Tol Diaz. boo ñëwee boo buntu kër Awa Diop rek. boo nu woowee rek nu jël jël si la. mais yow tey tey da nga rajeunir bergerie parce que man benn jeune man laa fekk mu ànd ak ay disketam mais nu mu noonu añal yi ma gis. Wow, waaw waaw ay agnelle de plaisir hmm? ay agnelle de plaisir la rek waaw xam na doonoo liggéey moom boo liggéey moom da ngay indi sa production wane ko quoi non mais dama ci production ci ci ay jeune eh, ci ay jeune euh, euh, euh, dafa dafa rafet déjà maa ngi taxaw ak kii jeune mal bu rafet bi kan la ron kii mooy ron di waaw di doomu maître Moussa maître Moussa di doomu bâtonnier waaw yaaji di doomu mad bool bool bool bool di doomu Madiba ak Washington maître Moussa bi ñu musa Moussa Yade. waaw bu ñu tuddee moo ñëw indi lii. moom moo indi mu ñëw mu ñëw ànd ak añel yi añel yi tam ku jur. waaw añel am na ay doomu Jolof. am na ñaari doomu Jolof am na doomu Bougane Bougane doomu Touareg. ok am na doom Roi Arthur. am na ay sëtu Washington tamit bu fi nekk. ok waaw ah. kon daal waa at bi tamit da ngeen jël si saa bi dugg ko biir BCD Maître Moussa. waaw liggéey bi rafet na. waaw mooy xam nga benn euh, waa at léegi mi ngi Galoya ah. waaw mi ngi Galoya. léegi nag dama bëgg nga wax ma kii sama jantal boy bi ñaata mois la am. kii am na 12 mois. 12 mois waaw kii mooy ron 12 mois la am. mais mais duggoon na. non duggalu ma ko. ndax non damay waajal tëngeej bi. damay waajal tëngeej bi. Ah, mais te xam nga ne kii il est beau. waaw il est très beau moom. waaw mais añeel yi ñoom ci yan mois lañ toll. agnel ah. ni six six mois sept mois. ok me mais mais mais mais mais man bergerie bi kon apa naa faa de mais bergerie bi soppeeku na sama ginnaaw de. waaw soppeeku na ko bu baax liggéey bi moom dox na. fay Jolof Jolof maître Moussa ñu fa di def liggéey bu doy war wàcce lii indi ko ci foire bi waaw yéen waaw wàcce ko kay sax. kon instant bi nyom nyom rek fa mal ci maal maître ak Jolof. non non Jolof joxe nañ ko. maître moo fa nekk ak doomam. ni ngay tamit doomu Bougane. ni Jolof tamit. kii nga ni mi ngi ci 12 mois kii euh, fan nga jëm moom kii kii nga gis moom. waaw kii ndaanaan la kii boo ko gisee xam na ni ndaanaan la am na beauté bi te dina rëy dina njool uh-huh. li si kanam bët waaw. Euh, kon euh, ana ana ana Tafa xanaa dugg dugg dafa voyagé dafa uh-huh. voyagé waaw. kon noo gisee filaa bi. waaw filaa de neex na de. waaw gis nañ lii production yi yokku na affaire yi neex na daal si amee jàngat quoi. kon daal dafa ñëw rek pour wane liggéeyam. ñëw rek euh, quoi. voilà voilà liggéey lañ indi. ci bëgg élevage bëgg élevage quoi voilà noonu la fa demee. kon euh, tey euh, lan ngay wax Moussa ak nan nga fan ngeen toll. waaw si liggéey de si liggéey waaw dafa moom ku baax la mooy lool ku baax la ni ñaanal li si kanam daal rawati bët waaw mais ron dama ko dugal sama de waaw waaw <laughs> waaw waaw e nana ko topp fu mën a jaar naa ko topp yàlla baax na yàlla baax na li kon fàttali gars yi numéro bi ak ak ak adresse waaw nii Kër Mbaye Tol Diaz numéro bi di 493 27 ak 77 859 99 81 waaw ah Samagal TV béykat Fada Diop mi noonu ngeen gisee jeune bu rafet bi taxaw jantal ba pare dégg daaj ah mais alors que yow Ron ah, la Ron. yow yaa moo sa bopp. waaw Modou Yacine la. Ah, gis nga Modou Yacine moo nekk ci xar yi moo gisee xar yi nii déggee nii lépp liggéey moo Modou Yacine la. kon Modou Yacine ñu kontaan ci yow. waaw ah, noonu la gën a fay ñu ngi kontaan si yéen tamit. jaajëf waay Samagal TV. jaajëf